may abonné kontaan bu baas si yéen bu leen di fàtte abonné wu ci sama seen youtube bi lien bi mooy ci tiktok maa ngi ñëw tey ci samedi mu nekk championnat Espagne diggante Valencano ak Barcelona Barcelona moom moo dalal Valencano ci këram mu nekk match bu difficile ci Barça Barça jéem nañu pousse nañu mais tey dafa dëggër lool ci côté Barça ñi def zéro bi partout Lewandowski seen recrute bu bees mu ngeen ci biir seen jeune joueur star muy kan en Fati mu ngeen ci biir jéem nañu ñu def zéro bi partout Valenciano nag dafa ñëw football ci kaw Barça sonal ko barsa nag jéem nañu essayé nañu mais tey nag dara doxul mu nekk zéro bi partout mu nekk aussi seen première match ci saison bi Barcelona mu nekk équipe boo xam ne ni ñu ngi koy xaar ci championnat Espagne ndax recrutement bu ñu def baax na loolu man la Alseyni Espagne dañuy dem ci championnat Angleterre mu nekk diggante Arsenal ak Leicester City Arsenal nak mo dalal Leicester City ci kërëm mu nekk deuxième match am aussi mu nekk deuxième victoire am Arsenal ñi ngi woné sen bop équipe la équipe boo xam dafa bëri ay jeunes mais jeunes yi amna ñu jom amna ñu fulla dañuy woné sen bop tay tamé woné nañ ko kon saison bi gis nañu Arsenal num ko commencé baxna mu nekk quatre buts de diggante Arsenal ak euh, Leicester. Arsenal dañuy dem ci siti City diggante moom ak Bournemouth mu dóor Bournemouth quatre buts à zéro siti ñi ngi ci forme seen premier match ñoo ñoo dóor deuxième bi tamit ñu dóor mu nekk lu baax si équipe wu Guardiola boo xam ne ni ay jeunes joueurs mais ñi ngi wone seen bopp seen recrue bi mooy Erling alan mu ngeen ci biir mais tey moom dugalul mais te aussi siti moo dóor 4 buts à Phil Foden mu ngi wone boppam jeune joueur moom lañ leen indiloon ca diggante Bournemouth ak City bu ñu fa jógee dañuy dem ci Manchester United Manchester United ñu ngi ci jafe-jafe mais aussi ñu ngi ci problème diggante ñoom ak Brentford Brentford nag moo ko dóor 4 bis à mu nekk lu métti ci Manchester United nawet yi yoo xam ne ni seen premier match défaite la deuxième match aussi ñi jël ci défaite mu nekk lu métti ci Cristiano Ronaldo ak seen entraîneur bi moom lañ leen indiloon ci championnat Angleterre man laal seeni alamuta ba yeneen